juróomi sénégalais ñàkk seen bakkan mu di Djibi Diol soxnaam rakkam Kumba Diol ak seen ñaari doom ci dëkk bu ñu nemmeeku foofu ci Denver ca États-Unis lañu ñàkkee seen bakkan seeni waajur nag yëg xibaar bi ni mel ci anam yu doy waar. Je suis dans un appel téléphonique seen papa mu ngi parce que seen papa il a la nationalité il est là-bas depuis presque plus d'une vingtaine d'années donc moom moo ma woo démb téléphone wax ma xibaar bi bon d'ailleurs moom nekkuñu ci benn état parce que lui il est établi au fële à New York donc doom yi ñoom ñoo nekk fële à à Denver Colorado voilà donc c'est suite à un appel téléphonique qu'on a su la nouvelle. man bi ma yeewoo démb maa ngi toog du ndékki après automatiquement ci la ñu ci la ñu wax affaire bi bon ci laa woo sama papa aussi direct mu wax ma ko ci laa woo sama beneen frère bi mooy ki ma bokk ak nday ak bay mom aussi ci lañu expliquer vraiment ne ñu non mujj nañ te seede quoi. c'était un élève très brillant mu jallé ba am bagam il est parti là-bas faire ses études bon après à la suite bi mu paree jang donc mu orienté vers euh, l'ingénierie donc euh, il est sorti il y a de cela trois ans donc euh, am son diplôme d'ingénieur donc il s'est marié mu ñeu tak jabar delluwaat et il a fait venir sa femme.

lépp daal bon vraiment mënuñu koo expliquer quoi sérieux métti na trop trop trop mais bon suñu borom mooy xool li gën mu di ko def peut-être tamit nii la ko tudd nii la ko yàlla tuddee ko l'enquête bi nga xam ni nag américain yi def nañu ko ci wàll wi ab pexe jéem faat bakkan mën na cee laxasu loolu tax na njabootu waay dem yi di ñaan nguur gi ñu dugal ci seen loxo ba leeral mbir mi. Pour le moment, euh, les autorités sont au courant parce que papam jokkoon nañ léegi suba ci donc euh, le consul n'est aux États-Unis donc euh, l'État est en train de suivre l'affaire donc nous aussi nous ngi ñu je sais qu'ils vont faire tout pour vraiment nous ñu pour corriger nous. ñu ñu une information qu'on a su comme tout le monde. Donc, comme quoi qu'il y a une main criminelle derrière. Bon, maintenant, comme c'est l'enquête est en cours, on ne peut pas se prononcer, comme c'est les autorités policières euh, euh, qui, américaines, donc je pense qu'ils vont faire euh, de telle sorte que nous def nous pour nous euh, si s'il y a une main criminelle derrière kan et euh, la suite nous dira quoi. donc pour le moment ñun aussi dañu leen di déglu rek. waaw non loolu lañ bëgg parce que bon ñu ngi dégg ay renseignements yoo xamante ne bon ñun it aussi comme que fii lañ ne ñoom ñu ngi fële euh, ñu ngi dégg aussi ci lu bari mais ñu lépp ñu bëgg daal mu gën a leer ñu sàq aussi nguur gi aussi mu def ci ay pour ñu def ci seen seen effort tuuti jàpp ci daal. njabootu bi Diol nag ba mbir mi amee ba tey ci nakar lañu toogee waaye weetuñu ci benn yoon ndax askanu Sénégal yépp jëye bi Dardine Angelical. thank